pare ba dinañ bokk ci élection sans pour autant désigner xëy na kan la ñuy àndal peut-être xëy na si stratégie la ñu nekk soo koy xoolee noonu ku mel ne Aminata Touré oui wax nañ dina xool dina discuter ak ay instance am. ku mel ni docteur Abdou certainement <coughs> peut-être xam nga ni Bougane est beaucoup plus peut-être clair moom nee moom anti système rek <coughs> waaw anti système daal euh, xëy na nañ ko xaaree ci côté boobu mooy ni soutien moom. c'est exclu de l'autre côté. bugaat bu dee da nga jàpp ne ba fii ni opposition bi doxee dafa des ci wàllu am déet. bugaat nu nga kaa jaale je pense que foofu laa waroon tàmbalee. sanu euh, yaay bi sanu xarit bi sanu mag bi euh, ki ne Diouf jaaga kilifa bi. Euh, nu ko kaa jaale bu baax lu lu metti moo moo dal famille bi hmm. waa kër coon dal buggaan dal ñi mu àndal ju ju il est courageux bi moo ko gisee ci ci conférence de presse bi je je m'attendais pas à le voir la bas mais j'avoue que lu metti moo leen dal euh, di wax ne nu nga kaa jaale ba baax di ñaan yàlla xare jaaga ak moom mi coon ak way dawlu yëpp ci aljana yi gën a kawe lu lu doy waar la. yàlla nag mooy yàlla. yàlla moom mooy mooy defee noonu je pense foofu la ñu waroon tàmbalee. Euh, nu ngi ko kaa jaale ba baax a baax a baax parce que si si c'est dingue di ko jaale waali hmm, ak la famille euh, Aliou Mohamed euh, doy na waar daal. Hmm. doy na waar lu lu yéeme la lu. koo la. waaw. <laughs> jaaga ku ko xamoon la nu ndeysaan j'ai j'ai de bon souvenirs ak moom. Mm. del euh, ci jamono. Mm. mook coon mi ngay gis ci image bi ak Waly ndeysaan boobu temps euh, yàlla dogaloon na ma waroon euh, jàppale Waly à ses débuts ki ni ndeysaan moom mi moo ko sooke woon insister ne paasan foog nga jàppale Waly insister coon appliquer appuyer Waly itam bëggoon ko yàlla dogal loolu donc ci jamono. Euh, on a eu ces ak moom i ndeysaan euh, doy na waar daal na yàlla xaral leen aljana yi gën a kawe teg leen ci wetu seydinaa Muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ni seede naa ni dañ kaa bëggoon ñoom. Mm. ñett ñooñu. Mm-hmm. seede naa ni dañoo bëggoon seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam coon euh, Momy ak jaaga yal na yàlla kattanal seen famille seen njaboot yi fi des may leen doole ba ñu mën kaa muñ ah, dékku ko. Euh, ak pas-pas ak fois et nit ñi bañ leen sonal aussi. xam dafa am Pape Ousmane il faut que ma wax ko tey te yàlla rek tax. waxati internet yi waxoon na ma ko la dernière fois ca ca dëju muumi bi site internet yi ak ak ak presse bi nañ ñu baal ci li ñoo wax dëj du lu ñuy couvrir gars yi dëy dëy xanaa kuy nettali ba war a mën mën a bàyyi loolu. xam ne a ah nettali la xew nga wax ko saa yi mu war a bàyyi nag dëy la famille a mal ci dëju Cheikhou Kouyaté bi comment les gens se sont comportés da ngay da ngay toog bu nga ne est-ce que les xam ne dafa deele nga tiim ko naan ko looy yëg mais mais nom de Dieu cancre quel cancre il faut nga nekk nit ku ñàkk ngeen baal ma ko jàkkaarloog nit ka nga xam ne dafa am ka ka mu ñàkk nga bëgg ko jooyloo quoi pour am vue qu'est-ce que ça veut dire kay il ñu arrêter gis nga yàlla ay mbiram dafa yéeme yéeme ba nga xam ne moo tax tout le ñuy wax da ngay dégg wolof naan làmmiñ balaa la naan ñuy moytu parce que léeg ngay tudd dara ba comme ñu naan senegal du dem maarade um kàddu bu diis la sa bañ koy def wax ba tey mu ngi dellu gannaaw mu ngi compliqué euh, wala nga xool nit ne ko yàlla nga dee ñu kaa kafe quoi reetaan yow yàlla na nga dee yow ñu reetaan xaaxataay maarade um si ñu ngi. génne lu baax suñu borom mën nañ ci fekk si donc loolu dafa nekk yoo xam ne xam nga cimetière euh, du lu ñuy wane le mythe même dafa dem ba ba nekk mais dafa c'est extraordinaire dañu dem ba banaliser ko ba mu nekk genre loo xam ni boo c'est pas grave si nga gis nit nekk ci cimetière yor téléphone am nii waaw booy waaw mais yow kon affaire bi joxe nga ko waaw d'accord que non dama nekk ci kii xamal nga kii maa ngi nii dañuy dem ci kii nii la y a pas de de sentiment donc ce pays là saa yi il faut ñu break il faut ñu taxaw def yi fi saa yi daa am nit que am nit que nite que nitoo di que nitari que nitadi juróom lañu yàlla ñu yàlla def nag nit ya nite loolu moom dama kaa ñaan sama mbokk presse bi site internet yi ngir yàlla ngir jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam dañoo am kañu ñàkk ak seen ay bokk ak seen am di jàmb jarul wane télé jarul filmer jarul direct bàyyi nit ñi ñu dem jàlli humblement ñooñu dund seen dëy xam nga voilà mais tiim nit jàddu caméra ñëw taxaw diw ñëw na diw ñëw na diw ñëw na maar um si bu ñu génnee semaine bi ci kii maar day um si beneen amaat ñu ci keneen diw ñëw na diw ñëw ngeen baal ñu quoi loolu dañ kaa ñaan gannaaw bu ñu ñaan la ñu fi jóge parce que les familles souffrent ak loolu dangay gis dem gis naa benn vidéo Ousmane Seck hmm. xaw ma kan moo ko doon interviewé xam nga gars yi bon aussi dañu xër parfois ñàkk xam la parfois xër la. Hmm. mu ngi wax ak moom Ousmane ne ko bon xam nga lii dëj bu tooy xepp la maa ngi kaa dégg mu koy wax. waay mu ne mais gars yi tam la boo xam ne amoon na solo aussi. Euh, on a mal quoi pour cette famille là. donc gars yi nañu arrêté. jël gàddu caméra ñëw taxaw ci buntu kër gi taxaw ku romb nga loolu maar day um ñu ñuy tooñ sax mën nañ cee rax. dañ bàyyi loolu parenthèse boobu noonu sànq yaa nga wax naan souvenir yu bëri mu ngi toq sa ci sa bopp ci booy xalaat jaaga ndax mun ngeen ci jox ñaar ba ñett. Euh, souvenir bon ab junjal naa la rapport bi ñu li ñu gënoon lié par rapport à Wally et mais mais souvenir bi ma am man c'est c'est c'est une une une maman qui couvre sa famille. koo xam ni heure boo duggee kër coon daa gis ni yaay ba mat yaay la bu yilif c'est c'est tellement important mm. j'ai j'ai j'ai en souvenance des choses qui viennent euh, maa ngi fàttaliku ndeysaan bi Wally di njëkk a joué si ses bi mu fa njëkk amal cette journée là on a longuement échangé man ak moom ma gis yaay bu mu mel ni Wally day dem concours mm. hmm? pour que soirée bi dox pour que affaire bi normal ma loolu lu ma lu ma jàpp la ak yeneen mais ma ma gis taxawaay bi mu si am euh, te taxawaay boobu ñi nga xam ni fekkee nañu jamonoy coon dëgg ba mu ci toll nee nañu taxawaay bu ni mel la amoon donc yaay la yaay bu mat yaay ci li ñu fekkee ci li ñu gis. Mm. yàlla na yàlla def ko xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljana gën a kawe c'est ma fille qui m'a annoncé son décès mm. et et, et j'ai eu un choc terrible ci ci ci mm. moment bi ju euh, dal na ma ci muumi dal na ma ci kii dal na ma ci coon je me rappelle euh, en 2020 euh, boobu tam maa ngi seen TV ñu waroon def euh, ñuy préparer journée du ah, journée de la femme ah, ah. je pense bu ñu ko doon mu tombeek chance la veille la veille bi ñu waree enregistré comme je je je je en permanent contact ak Moumi euh, mu naan ma ma woo ko ba son jotuma ko après mu ne ma non pas bi moo xaw a tawat ak ak mère bi il étaient hospitalisés bon ce sont des choses parfois on n'a pas envie de les dire euh, mais ay affaires yuy revenir la yoo xam ne nga xam ne que eh, xoolal moment bi may wax loolu ndekete ñoom ñett nii lay demee gis nga yàlla yàlla yàlla dafa garaaw dafa yàlla dafa yéeme eh, yàlla daal mooy yàlla je suis très affecté par ça waaw wallahi lazim am nga message pour Wally Wally je je j'imagine moom ak euh, rakkam yi Mohamed déjà Mohamed euh, Babacar Aïcha Aliou j'imagine la souffrance ak seen ak les frères de Thione Ousmane Assane Ndiaye Mapenda Seck j'imagine ki en France ak euh, Keba en fait yàlla famille yëpp la koy teg ah. yëpp la koy teg ak ay façon am nag. mais métti na daal vraiment dama message pour Wally peut-être c'est c'est mu je pense qu'il est courageux noonu laa ko euh, mu continuer et puis euh, gën a gën a comment on appelle léegi nag mu nekk coon nekk jaaga waaw je pense ci le message day nekk coon nekk jaaga nekk muumi yàlla na yàlla kattanal ka dëgëral taxawaayam ci loolu moo ko ay rakkam ñu nekk une famille compacte kenn nag bañ cee rax bañ ciy dugg lenn bañ ko jaxase euh, ak kenn et surtout yàlla dooleel ko ci carrière am parce que il vit des très difficiles je pense que dañ ko war a dimbali taxawu ko et surtout mu ñu ñu ñu may ko mu break noppalu toppatoo njaboot bi. loolu moo gën a am solo. ñi nga xam ñu ngi riir nag du fu ñuy coowee fu ñuy foowee ak ak fu ñuy créer ambiance c'est sacré nañ leen bàyyi en famille ñu dund seen métit que leen di ñaanal nga ñaanal leen et point. Mm. mais dem kër jàmbur toog créer fa tension ak wax. Sénégal nañu xoolaat suñu bopp. Hmm. nañu bopp yàlla nañu yàlla muccal ta amiin yaa rabbi parenthèse boobu noonu ñu ciy jaar aussi di jaalewaat bu baax ah famille Thione Seck ci décès boobu alors Pa Assane bu ñu wéyalee ci. par rapport à l'opposition ci la ñu nekkoon. oui ci lañu nekkoon. ma ma je wax nga ko mooy il faut ñu dànqaloo ñu fexe ba taxaw ba liñ jëm ni ñu xool ñu ko song mais j'ai envie aussi. Hmm. nga wax ma tamit noo dundee cette histoire de binationalité ak Karim Wade ak ni mu mujjee. recours bi Thierno Alassane la dugaloon ak ginnaaw gi it liñ ko tam yëpp ba même El Malick Ndiaye la mu ca jot a wax ak yëpp ba fi ñu ci toll finalement yow actualité boobu noo ko kii da nga naan ku mel ni Karim mérité woon na bokk. non wala euh, taxawaay bi ci taas am aussi. Karim Karim Wade mérite plus mérite mérite mérite plus que bokk c'est